te yëpp kenn ku ci nag sa tour ak sa sant boo gisee tey ñi ñëw woo presse yi parce que dafa am nouvelle bu nga xamee mu ngi circuler ci dëkk bi arrestation yi nga xamee gendarmerie def nañu ko ci semaine bi am na ñu nga xamee jóg nañu ñi ne waa SDD ak seen secretaire général Souleymane Ndiaye ñoom ñoo yore list boobu joo ko gendarme yi loolu daf ñu naxari trop parce que xale bu ñu doon manifester ci bëccëg la koy def ci kanam militaires yi ñi def seen manifestation dem ci kër Souleymane Ndiaye daaneel foofu miir yi toj birik yi karo yi dégâts bu ñuy def foofu ay millions lañ Souleymane jaay bu mu jógee dakaar ñëw dafa ne xale yooyu daal jégal na leen parce que moom doom Goudomp la te xale yi ñuy def loolu waa Goudomp la ñu xale yi Goudomp la ñu moom buggul jël doom Goudomp tëj ko ci prison mu ne mais conseil bu mu war a jox. xale yi yooyu parents yi nañ leen conseiller ñi changer seen comportement loolu bu passé Souleymane Ndiaye dafa doon continuer di def ay parrainage yi gàmmu yi après mu dem xale yooyu dellu encore def beneen manifestation encore ñëw ba ciblé këram bugg a kër bi heureusement dafa am ay jeunes ñi nga xamee ñoom tamit ñi ne Souleymane Ndiaye moo leen doyal dañuy garder kër Souleymane Ndiaye kenn du fa yàqu keroog dañuy daxante ak booy yooyu dem. xale yooyu jóg fii encore dem attaquer gendarme yi ba jël seen xar damm seen tànk seen plat bu ñuy war a lekk jël ko këpp ko ci suuf def foofu ay suuf ñi jóg foofu suñu corbière yaxu ko pourtant fi dëkk bi dafa am ay mag ay responsable kenn demul ci xale yooyu nee leen li ngeen di def ni loolu jaadu ñi xaar ba léegi gendarme yi commencé jàpp xale yi gars yi commencé jóg ni ne di waa SDD moo nekk seen gannaaw ñiy wax loolu ñoom ñooy manipuler xale yi pour ñu dem yàqu kër Souleymane jaay dem dem attaquer gendarme yi dem dem eh, dem yàqu seen corbillard yi képp ku ne waa SDD moo nekk ci gannaaw loolu du dëgg ñoom ñooy manipuler xale yooyu parce que ce qui s'est passé à Goudomp fii yëpp gis nañ ko loolu moo tax ñii ñëw fii di leen weddi di leen ne li ngeen wax Souleymane Ndiaye lu muy def sur le plan social Goudomp fii gis yëpp gis na ko surtout département bi yëpp région yëpp. kooku tuuram kenn du mënu ko yàq c'est pas possible Souleymane jaay n'est au courant de rien d'ailleurs moom moo moo fa war a teew malheureusement dafa voyage donc comme que gars yi ñu ngi wax lu nekk il faut que ñu ñuy wax askan bi gars yi lu ñuy def moytu leen message bu ma bëgg a xale yooyu bu leen nangu ñu leen manipuler mag yoyu ñu leen di ne def leen nii def leen nii ñoom def nañu seen jamono ba pare jeex na ils sont presque au crépuscule mais vous vous venez de def def leen yëpp bu ngeen orienté seen avenir waa SDD ñun jàmm rek la ñaan.